dëggu ku saasa sama nday na ma laskandariya de fa garde ibnu samba sidi baara ma ne fa garde sirru bu siiru yu ibnu samba juufu ibu juufa topp yonnen sidi baara ma ne ndongoy barhama ñas waykat baa leen di dénk ay baata munkuti bi ci biir kaddu Sidi Baar Amath leen refen njort seen xaatir yi ci yàlla ta ngeen màndu kon ngeen daagu pii malakoot Sidi Baar amuna njaw caam bismillaahi tàggu naa fi daawul sa wàllu junne xul walaahu doy naa Sidi Baar amana bokki siwal bokki kantoora taggu ku saasa maa ngi para dellu xaybu Sidi Baar amuna ñaanal leen ma keroog suma del siyaate nekk di jaama bàyyi warlu leen ma loolu gaañi sidi baara man suma fàddoon nañ morog kusaasa foofay banjagara fa seexu omar fuuteen kéeba sidi baara hamma nii la ko waxee ibrahima jumuna yow xamoon nag ba pare dee ci ndaw lu daw yaram dof du wér ala nage maayo gay naa ko ndaw ki yurmi nii ni kanga do sellata sidi barahama ala nage maya gayna ko ndako yurminini kanga do sellata maya sidi barahama mam habdu ñang murid sadiq bi moda qasi qas mam habdu ñang amiri bi jeex ci barahama ne mamun mu yaay sëtu mooy sappor moo di commerçant de moo leen di fal yeliman ñoom qasi barahama ne sëriñ Aliou Cissé directeur la passé na commandant de moo leen di may permis waa kër Sidi Bara amana Serigne Mbaye Niass moo da député ca peyi Sidi Baraam de ordal ba fa moom lay jaar Sidi Bara amana Cheikh Ibra Fall entrepreneur la mooy xaadi Bara moo da doxal gaaya fa kër Sidi Bara amana Ousmane Ndiaye toog ca cadre ba moo leen di rappel de la wex bi yaama doy meetar Sidi Bara amana Cheikh Omar Touré colonel la dëkkal militaire de yaa yor école militaire yi waa kër Seydi Bara ama ne baab waxa wa yënga maqaama laa wex bi yaa foorde yaa da isi ñiri waa kër Seydi Bara ama ne Omar loolu laa maram gaña gëlëm ci bara am yaa siixu satu ñang xam nga sewetaas jaayante nga baay tampe nañ la malow loola Seydi Bara ama ne Amadou Thiam Guinée waluwaayu kër gi ci biir géej gi yaa da biram patey fadal xaami daanu jaaxaan seydi barhamana ya dox potti gali di dajji wenga yi kii ngay doxal gaali capitaine salmax yaa ngi gaare seen gaalo sidi barahama sidi barhamana saabam yaa nga mel ni ki nag tóotóoram ya mo tambu geer waaja xeqon badar kubra adi barhamana bàyyaa toxal lëndam dàq kii fiir yaay sëriñ bu doomi borom nguur gi màgg gëfal la sidi baar amane bisub gambar bamboon ma ko feeñoon ba saaba yey muuy waaja yaram cus ko toogaay sidi baar amone njarama gaynaa boo anin baara doomi abdallaahi yaa fi xam la ilmu baatin sidi ba am na ismullahi la azam ak la ko doxloo booba si rombo orloo sa rijal bi doomaas sidi ba am na gouverneur l'islam bi bari yewi ijaas foras bay la ya noy na sidi ba am abubakar sadiq kay mel الخام صديق دون بربوت نغام سيدي بارا ماني مدينة اي تيرو جول مكان بنا رسلان من يدقو سنبو حاسم سيدي بارا منانيك السلام nañoo dellu nuyu borom faas sadratul bayda bi doomaas sidi baara mu hamidu majidu ya rabbi ila jasba fooro siyaadu sadiqu lamin wax di baara mu ne alamul mustaan ba nga wàcce baay lar da borom kun ja la tannaa sidi baara moo ne baqoo bayaat ba mu lay jas baara sal ko mooyam ci mbaam dungu wana ko jamaahir sidi baara moo ne baqoo bayaat ba mu lay jas baara sal ko mooyam ci mbaam dungu wana ko jamaahir sidi baara gaynde ñeloor gi yaa bari ndaw ku la biir sange nga ñëw maawul xale bi sidi baar xam mana gaynde ñeloor yaa bari tiyaabo ndaw ku la biir nga ñëw maawul xale bi suni baarama gaynde ñaloor gi yamri tiyaabo ndaw ku la biir sange nañu maawul xay bi suni baarama na jant ba fenk na maxrib xam na yombul mbaay jël nañ drapeau l'islam suñu baara man yàlla ñu jagleel ñuy pare kaw te dootuñ pare suuf saytu si yoo ki bay ñëw na. suñu baara man a bay doxali ci la moo moo xaybu xajul ci dunya alam bi ko gàggal ay laa. sëriñ ba mara doon a janga boo ko xëy bi xajil ci dunya alam bi ko garde lay laaj sëriñ ba mara yàlla yónni suñu sama tas bi ci réew soo daan sëy bi wujju bi wàcc na xam ma ne baraama ñas boo ko kaybu kaybu ba mooy jaar malaate si karanga sidi ba xam ma ne baraama fa alamul aliya ndaw lu leer a leer malaate si garfetal sidi ba ma ne rooya nekkoon ci kalanta untuk dem sidi baramane baranang lena kalalem bamanyana le de palasenan masoda di bara hammana hatam juma bidu bacay wacce coko asal mau kira lañu jël leen suñ baye Sedih baar xamane bitibu bay sawal sunuruhu sant warna jabrul huda fay nasuran sidi baar xamane bitibu banganan subhana rabbi alama mamlu subu bahru malakut sidi baar xamane bitibu bangak pakai taimu yu àndal te yàlla ngi ñëw wan ne mooy buur sidi barahama ne guddi gi ca pasi tuure loola day sama ndaay kër yow mooy masuma sidi barahama ne njaayan kaddu ja day sama ndaay iya, yow masuma bi yónneen waree buraax sidi barahama ne fàttalikoo sibitar amanan baraman ranan kullini ba ma dee yëngoot jibril damay dellu malakoot sëriñ ba xam ma ne bay aji Babakar nga naan ndongo yi tuub leen bu mu ne jubee dañoo bëgg a dem sëriñ ba xam ma ne la koo dalee minuit jamaan nag ba tey waxtu gee yaram ba ngay baxoo malakoot Sri baraxam mana sëriñ day mi doon babakar siddiq dal di kaddu moom kaddu gaara nuru rahman Sri baraxam mana saxoole naa siyaare ta mokkal madina kër baay junde du ngeen dellu naasoo sidi mana ñuy bëgg xalku jibril bombar da leen bañ jeex sidi baara mën am samoon ba bëgg xalku la ñuy di yónneen jàpp kilim mam noose yaay ma ñetti bis ko baraama jibril bombar da leen bañ jeex sidi baara sunu fatim

Sidi Baara Maana Sëriñ Jojo Bakka Cam Kër Mbango ñoo lab ci yàlla muriidu Fatick ñoo doom Sidi Baara Maana Tijjel Tijjel Kër Kàkkar Laayen la ñu fekkoon noonu ba jàngamel ni day gu jot bopp Sidi Baara Maana Tijjel Tijjel Kër Kàkkar Laayen la ñu fekkoon noonu ba Gus Jokbo Sini barhamana saman mangga fri banggor banggor banggor banggor Jem cice nyom bayo gem cedong jemahin Sini amanah saman mangga fri banggor banggor banggor Jem cice nyom bayo gem cedong jemahin Sini bar amana bakang kona Amiga sering tahun baraama ñu tiim jaan ji manta matt ndongo sëriñ baamara bakka ko naan di jaay sëriñ waxoon baraama ñu tiim jaan ji manta matt ndongo sëriñ baamara jàngal leen karante ki juuri dalaat ci li ndeel sëriñ jooja dal di sabal bam daanu jaaxaan bàyyi tënte doom jamaayam sidi barham la ilaha illallah nañ jàpp lu be ci baay ndax yàlla tax ci moom yàlla bu ñu fase gile góor sidi barham mbugal mu for mi ci biir bàmmel ñi koy xilaam naam xanaa dañoo yor ngërëm ci baraka mbugal mu for ni ci biir bàmmel ñi koy xilaam naam xanaa dañoo yorul ngërëmal si barahama ibu juuf ne ku faatu tey balaa teewe loola jox la passeport si di barxam bu doon jaay wir daam defoon dana riis gaalam gi soxlawut passeport si di barxam bu doon jaay wir daam ndekkoon dana riis gaalam gi soxlawut passeport lu ñuy giiroo Baay Ñas sapur ko sappo haddina sapor baraya kita bay simna sëriñu tariya xoloo la ñuy giiroo Sénégal bu ñu rayoon baay noppal nañu commandant baay xolut bu ñu xëcc nguur seetu tere soxre Sénégal ak Gambie bu yoolam baay noppal na yëpp na danaan ba xolot fu bépp ci nguur seetu karoore Sidi Baraam moo de nga xam ne moo da yambul mbaay bi laahi nguuram kuram bi ko taqaw wurus ak jama ci biir tambur musul yi ci biir ma juuda siri baram moo di courant courant day jox ak leer làpp bu ci xam ak làmp muy tourné muy taa tàkk bindiñ ci moom leer borom leer ka jël na leeram ma di baraxam coxal mbott ci biir diig du tere ñay waay naan làmp ko am du ko fay moo di baraxam coxal mbott ci biir diig du tere ñay waay naan lamp kurang galau du ko fay moo di barahama Quran ba jaar na ca biir sugur tax di loo tudd kursi Quran ba jaar na ca biir sugur taxal bambukar dëpp di loo tudd kursi Abdou Diasse bambukar Abdou Bitey ba tamar yaa leen di ko abdu jaase bambugaar abdu bi tey tamaar yaa leen di roose ak leer jox leen sa taaru bu leen xañaan leen ko def wuti ku ci muusoom baay mbaraama roose rek jox la sa taaru ibu juum nekkuleen ko ne wuti ku ci muusoo dangay faral baay baraam ma rosala leer jox la sa wetaasu waaye nag da ngeen ma ñaan te di nafiq te ñaan ko muur yàlla alxib di gor am di baraam moom ku yàlla yi ma balaa dee xal ko mbaa mu waraakaama jëmm jëlëndam bu soobu ci leer ku yàlla yi ma balaa dee xal ko mu waraakaama jëmm jëlëndam bu ci leer ku yàlla yi ma ndongo yaar si ak leer yi jóg naan ma di yàllaaw kabar ga dal na ca biir guusi si kaar sa bawaana arif si ndaw sa naan ajaban si di bara am ku man doxoon borom du ko mandi jóg leenu taataan kii di meew yaa kuusi bàyyi ga ga di tey dóoroo bay jëlut fetal jaasi taba tey gobar jëlut boos njural sàmmaa la fi dóor si bay ñas jëlut xaaj ba ca gànnaar mu si karloo aarif su ngaw sana ajaban si bara Abdullah Uladul Haj Maca Ganar Mengai Sikarlo Arif Sunda Husnul Ajab Abdullah Uladul Haj Maca Ganar Mengai Sikarlo Arif Sunda Husnul Ajab Abdullah Uladul Haj Maca Ganar Mengai Sikarlo Arif Sunda Husnul Ajab Sidi Barahama Baik Hamam murab. mas Sabihin ko gigino yon Halak sa namin ulipigil of stool Hamon maram Dul matam ko gigino yon Halak sa namin ulipigil of stool Yan lang to kuhal na pamuy Siya'y kumurabi makontan juróom ñaari yoon jox ko signature noonu baraam xalku ngeen saytaane dëgg dëgg na ci yéen billaay ba ngeen jéeg iblis ci biir naare sa pour bu salmaxa jinne jàpp mudah mu dof te di conducteur ku dugg ci otoom gaaw a dee fanaane dee leer ko safar bu sal naxa jinne jàpp ko mu dof di conducteur ku Bayradin'den yasılma Kanali şehrinin kerametini Bayradin'den yasılma طريقة إمام نصر منا تساعد يدي بها نتوب يا مجاب لسان يقيب وشراب من أن قال فات بالبلاد من أن قال رب هذا رب شر سيد أمين كل يوم جمعة أو من غير قول لرسول دون إذن ولا سبيل قفاو haitul milari lada yang wajaman sumaya ada siwa sumana ala kala ala sarasri tabo min inna la imamukum sumaya nana min humma المسكين لوز نشار حرة من هذا حقوق الأولياء تلك من ساد شيخ غاية بقرب هذا السفر أصحابه الأصلياء قدم شيخ غاية قومي كل عصير سيادته قضاء ذوي بما خالد قبل دون سكين ولا فيه نداء من كرامة تيؤكل وتراكيب الاسم كيف يشاء دفت الكعبة شريفة بشيخ عديدا يا بلاد العطاء فصل الشيء مطابق لما حبسيكما به ابتداء واستلام الإيمان كان عملا فيه الأمر نعم القضاء وقدر كم له من إقاسة لقريب كم له من بالاستقام الدواء ليس الإمام سوقة قوم كأذلت بظلمه أمراء كما بالقيل مريعا بكب فمدت بمولها أرواء تغير النصر نفسة شيء عمري تلك كف في لناس شباب صاروا لو عمواد رسولي وبسيط الملوك والأدار دعوة القلب مثل باطل شيء دعوة الخير دونهم أنواع يرسق الله علماء ورثاهم رأس الشيء واقتصاته به البرهاء حرك القلب دائما بازدياد لارتقاء المنام الاولياء حين صد الحرارة قلبي فيه قال يطال من الناس بها ثم قال ساء ليس لا يتابه أمنا ثم مات قد الفريد بذواء من بسد قميصها قرفاء ذلك العام عام يذكر به أيام أتت إمام te mooy demee. may goxi may li ngeen gannaaw ci xàll bi. përikatu baraama doy nañu diggee. mayam rëy koy na fa doy nañu diggee. ci nee di yóbbu. saasali yóbbu ji. yu baraama sa nanente sese duñ ko bay yow suuba gi ñenente dar jàppal ma tariqatu barhama li nappal ma bu bi gënoo barada yaa barada yaa te ñaan fa mag te ñaan ca bépp xaajo ya yow yàlla mooy kii teral te mooy kii lay teral ci a ak àllaxira moo leen gënal téléphone yi ak télévision ya duñ fa പല്ലക്കിന്റെ ഉങ്കിരിഞ്ഞമിയ പത്തല് കൊറഞ്ഞ പിന്നിൽ സംഖ്യയല്ല lalladana waji lolu cant la bunti ak baxiya lo deugam di war ndojuma je lim ko lo deugam di war may ñaan ci yalla ak sa ab do tur ci madina ko നൈഞ്ഞാറാണ് സിംഗപ്പൂർ അത് പൊട്ടാലുവേ തുമ്പത്തിന്റെ തുണ്ടായി വന്നിട്ടാലുവേ മുരക്കൽ മുടിവിച്ചില്ലിട്ട മമ്പനോ എല്ലാം മുസൽ കിട്ടുകയും ഇവളെ മടിനാൾ വരാമാ yàlla bëggal ñu ca ñu ni bañ waane ne sant tey topp ci yoonu baay man nag tabe mbëleen jikkoom yu baax yi jikkoom yu baax yi yoo xamar nellal ko la tuuma ci mbëgam xamar gàttal ko nu si luñ tubi ci jikkoom jàngal ma mur yokku ta seen xaar bon nga xam ne li kii ma di buur Mamad Borom dulun maram te may borom ku maram te may borom biñ maram moo Mamad Borom jam jamu leen seen borom kii ma di buur Mamad Borom dulun maram te may borom ku maram te may borom xaadim ko borom Muhammad borom yàlla xabibi suñ borom moo ñu xamal moo ñu xamal moo ñu gënal moo ñu defar kanjaamu kii mooy suñ borom rabbul bariyate gi ne mooy buuri buuri mooy borom yow sa xarit jeexal ci kii bul gëstu kenn ku dul kii bàyyi si secteur bu rëy bi lañ gëlëm yaa ñu nandal bañ na wedem ñii jooy na gis nay suñ borom cay bii borom cay bii borom sëriñ bi mooy buntab borom màggal ko mooy buntab borom teral ko mooy buntab borom borom bi moo ji borom nekkul ka màggal suñ borom tey waaru naa ci bii borom Ibrahima ñu wax li lee a yoo soo bëggee dem di doxee saxal ci buntu suñ borom ruuxu bakkan bi ma gaaw de xatte naan leen baleen kuloo baleen meroo nañ ko tur xam suñ borom bakkan bi maa ngi lay digal yoo sa xarit dañ leen digal bànneex bi mooy di lay digal wàññi yoonu jëm ci sa borom yow sa bakkan royor roxo royor roxo royor roxo ko jaasi sa boroma yoo saakari wutul moy dongoog diggante di noonale di kaajale ka seenale dalay andar mbugalam boroma may do ni sa bakkan digal wutul man nay ak ku tayal riyak kañaan

kwenye من أبي أبي منكر siri baara ma ne gaañal ko naan dañoo gàddaayoon nguur a dakk yaanu wuti ca balla ba romb siri baara ma ne góor ga di waaxu kanaame gaaña ca tribunal yi yow ma bu rax nguur ngura dakki yana wuti kër ca àll ba romba si di baara ma ne góor gaa naan ndax su ma gënee ràññee ngeen fekk di leen nekkoon naw di yaw ko ñu naan si baara ma gàññaa ko naan mboolem suñu kër yi ñu ko xànd ak yàlla du toon ma ne góor naan jóg leen ba ñu topp bi ruum bisub keroog doy na kiimaa kër fekk fa ak góor góor ga ba be jaaw Sidi Baara ma ne góor ga ko naan jile kër billaay maa moom borom kër gaa ngi koy reetaan Sidi Baara ma ne góor ga ko naan xëy mu dem ba kiilaay duma laaj sama sët di tamaam Sidi Baara ma ne góor ga ko naan xëy mu dem ba ndëppoon du ma laaj sama sëbi maa di sama siri baara bara góor gaa ko ma kaane coroon tàndar ma ga sama sëbi gis ngeen ko siri baara góor gaa ko naa sama noon na sama halal li naan lekk a gaddaay kala sanko di room siri baara ma ne buuru hiidir ba bila kabru daa fi tabax jàngu ba fi ay këram di ko jaamu Sidi Baara ma ne buuru ba ne bile këru daa fi tabax jumaa dafi jàngu yàlla yónnee Sidi Baara ma ba daal di fekk xeex ak yi tur ba bisu keroog doy na kiimaan Sidi Baara ma ne buuru ba daal di rey buuru yi tur ba naan ko faas bi bile xabru bi naan bi Sidi Haaram nag tabax na ko juma dafa jaamu rabbu samaawaati suuf yaa ngi yaa ngi fay sabal Sidi Haaram nag yawma yanzurul mar'u maa qaddamat yadaahu moom la ñu yow nii sabee biir gi Sidi Haaram bartakun laa yabqiyaani moo doon Sidi Barham nuuru daa ñëw na soxdaan bi barahamaan allah allah taxoo leen ak julli te di wir da di wasifa lool fardul jaani moo fi ñëw na moo fi barahamaan texe ñeexal na leen yéen bi ndee bi soppu baraham yéenay dëkkee xel yi na si bi barahamaan ku xaw ci digg manding mar dog la dana séentu dee kala may ndox mooy sa sasataan si di barahama baleen di koy puro daay ma bu jëb ki may sóot daleen gërëm bër mi si di barahama xam ni la nga xamoon ku la jëg ko yaay yoon Ibra Faal xam ni sidi barahama ibu juf ne bana bo came sama makkan jom sinja wara han ban may tourné may hut sidi barahama wara fekk siixu fay banjul mum ma kanen to ne abon fay du fay nga sodan sidi barahama siixu manan jent ngaman pakku he mbooti mboot bo kay bu jom ci sodan sidi barahama Ibou Diouf ko naan mbay siiku wax ma bag bakaar ba mooy ko seet ndax ma présentel xarba siri baraxam ma seekoon ko naan cer bu sufle nit ña ba bandoor mele bari la jamba gamba siri baraxam ma booba laa fa boo ñëw suukoo Dakar nooru diinam maa ngi tàccu bagg bu xeb siri baraxam ma ba ñu déggee baatu lay laaba ni ña ko bondoor ne abol ko ñu ba nga ñasel sini barahama mam aji ñas yoonu makkaw sowel na soodaan wàccee na kibritul lahmar sini barahama nay leen garaw waaja abdallah radiyallahu anhu wàccee na ñu siiru kaamil sini barahama mam aji ñas mbara njàmbang ji band ca mu mag wi yaañu teeti meeyaa Sidi Barahama jëljële xakkaari billaay kenn du Sidi Baraham bincilum bamburam naani Sidi Barahama nen bu jar junne cuub ba jar ta xayma gaañu si karleen jëmmi haarit mbiram bay foor moo di Barahama tafsir Omar kuta ñeenaana xam na yombul baay yombi yóbbu haale ngërëmal Sidi Barahama ak bitiyam sañin na jaawaleel ko suusi kuusi gërdana mbër sidi barahamaan jàmbuy jàmbu yàlla ba moo ko booba ku daa màggal sidi barahamaan saxaar bu dee lonku ay waxoon beneen gaara tax góorgóorlu leen teew fa gaar ba sidi barahamaan saxaar bu dee lonku ay waxoon beneen gaara tax góorgóorlu leen teew fa gaar Sidi Barahama wax nga xooloo bu bëri sa kenn du seen marchandise dañ koy xam wax nga bazar ba Sidi Barahama wóoloo la ko moo dam nag soppu soppeeku faasix jëmbam may sopp xol ba faasix Sidi Barahama xeebu leen ba seet na jug leen bàyyi leen seere war nga tappe si seer Sidi Barahama soldat bu see jiyoom ndigalal buur leen dem su yàlla yàlla xiir ñu ci njub Sidi Barahama soldat bu sii di yow ndigalal buur la nga dem ci mbaam yàlla yàlla xiir ñu ci njub Sidi Barahama Sidi Arifina yaa rabbi Barahama laa biir man ba xelal waari moo di Sidi Barahama gaynde ñoroo yaa bëri yaa ba ndaw sangee nañu maagul xay bi si barahama na jant ba fekk na nax rib xam na yombul mbaay jël nañ dara kuumu lislaam si barahama na doole janga boo ko xay bu xajul ci dunya xaaram di ko garde lay laaj si barahama na yàlla yónni suñu xewetaat bi ci réew yi Suudaan tey di wujjoot bi wàcci na si barahama na yàlla ñu jagleel ñuy paree kaw te dootuñ paree suuf si ñoom di bàyyi wu ñu. li bara amana yàlla ñu jagleel. ñuy paree kaw te dootuñ si ñoom di bàyyi wu ñu. li bara amana mbaara yi doon turam doon naare. da yóbbu aljana si bi bara aljal na malga. mbali soo daan waar mbaara yi doon turam doon ba yobbu aljanna si mi mar am jëlna mbal ga mbali sodan wale bara ma halam ba moy jaar marat ke yesti karam nak sidi mar am mane bara ma wacc fa alam rolia ndawlo lera ler marat ke bara nangal naa ne tànnal leen ba ma ñaanal leen bépp laa apa nañ ma soodaan su di ba amaane jumama bisu ba ca wàcce ca kaw asamaaw keroog la ñu jagleel suñ baay su di ba amaane bisu boobaa sawel suñu ruu yi sant war na jaam ruuru daa koy na soodaan su di ba amaane bisu ba nga naan subaana Sidi Bara amaana bi ju bàll pakke xaybu daanu ci London pays Angleterre yàlla ngi ngay wan ne mooy buur Sidi Bara amaana bu jigéen ca Fossi Touré loolu day sama ndaay karam yow ma yëpp a suuna Sidi Bara amaana njaayal kaddi ja day sama ndaay yow ma yëpp a suuna bu yónnee waree bu raa jox sax Sidi Bara amaana fàttaliku guddi laay laay ga layoo ba ca min ka maa nga naan tudd sini baraam ma ne baraam maa nga naan tuub leen de ba ma digal mbóot jibril dafay dellu ma la koot sini baraam ma ne baraam maa nga naan tuub leen ba ma digal mbóot jibril dafay dellu ma la koot sini baraam ma ne bay aji Babakar a nga naan ndongo yi tuub leen bu mi ni jógee dañoo dugg dem sini baraam ma bay aji Babakar a nga naan ndongo yi tuub leen bu mi ni jógee dañoo dugg dem sini baraam ma ne la kootalee midi jom nag ba ca waxtu gee yaaram baa ngi bowoon la ko si di bara amare sëriñ mbay mi jonnu a Babacar ba bi dal di kaddu kaddu gaa di nuuru si di bara amare saxoole ne siyaare te da mokkal Madina kër baay ku dee du ngeen dellu naasu si di bara amare saxoole ne siyaare te da mokkal Madina kër baay ku dee du ngeen dellu naasu si di bara amare waaxaat jëkkëy ba ñooy bëgg a xalku nañu ne jibril boo fàggalee ba jeex siri bare amari ahlu sumuul ba ñooy bëgg a xalku lañu wet di ne jàpp gileen moom gaay noosee ahlu linkaaree na doomi gileen nga xaacu na ñetti yoon dis ko jibril ba mbardaleen ba jeex siri bare amari suñu yoonu kër laayen fatim ja na ma baal bàyyi gën ca doom ya bàyyi di bara a sunu yoru kër laayeen fatim jot jow nana waan baayo gën ca doom jamaayim di bara amara sëriñ joojo bakka cam kër mbamba ñoo nag ci yàlla muridu sa yi ñoo gëm di bara amara sëriñ joojo bakka cam kër mbamba ñoo nag ci yàlla muridu sa yi ñoo gëm di bara amara diggante kër jor ak kër laayeen la ñu fi ko noonu ba jàngamel ni daay bu jot bopp dimaana maana xamal naa la prix Bangor ba jëm ci sa ñoom Jooja dal sabal si di bar amare xamal naa la prix Bangor ba jëm ca ca ñoom bàyyi gëm ca doom ja baayam di bar bakkan ko ni jaay Serigne waxu bara maa ngi tiim jàngi ma tamat ndongol si di bar amare bakkan ko ni jaay Serigne waxu bara maa ngi tiim jàngi ma tamat ndongol Sidi Bar ama ne jàng-jàng leen karante te jóore da lakk ni ndeet sëriñ jooja dal di sabal Sidi Bar ama ne barama ko fetti marta gamba ba daanu jaaxaan bàyyi gën ca doom ja bàyyi Sidi Bar ama ne barama ko fetti marta bamba ba daanu jaaxaan bàyyi gën ca doom ja bàyyi Sidi Bar ama amiril mu'minin nabi feeñ na يا ذا الأرض يا ذا الأرض Hindi baka mo na isim mong magbiyayang lampi. Yanan di mayan yanan lirang ano naman. Hindi na Banyak kau na lagi yang kau yang lagi. Hindi baka mo na ginulit ng bantara. Yan ang Jadi jóg leen doomi baaraam noor gaane dal di dugg sa biir mandi noor daje jëm góor mu ne leen sunu jële bàyyi si di baaraam noor mu waram ko naan jëlam du soox daje nañu moom góor ga da ko bàyyi soxla si di baaraam noor ci la mag daral ba def dajee na ñoom moom góor ga ne ko bàyyi moom la ah. ñu am naa am naa rek ko naan ci lañ bu kenn ba dog dajee na ñoom moom ah. ah, góor ga ne ko bàyyi moom la ñu ne ko am naa Ilias ak ko naan yow ci la laaj gaañaa ko naan doxal ñu ngi ci suñu sa bilan gi sa góor ne bilan bi la si laal amaan góor gaa ngi leen naan bala ngeen góor doo dina nekk laal bàyyi waa sama bilan gi bi naa ne moom mu wóor ba daa la নুরানিয়াও গেলেন মন্ত্রী দুটি দেখছ সিনিবার মুরার কনার নেকি কাঞ্চি মোজমটি সুতি মমগর দুটি দেখছ সিনিবার একাদি যখন না রব্বিয়াও গেলেন মন্ত্রী সিনিবার রব্বেন কনার ব্যবহারিয়ন্ন জানলেকে মোহাম্মদের জন্য সুবিধার জনমানিয়ারিবত বুইলেকে বুইলেকে জীবন বরিয়ন চিনাই বরিয়ন লাই সুবিধার লরম জওয়ান জম্মত কসু সমম জাকওয়া মোহাম্মদের জন্য কাবিটা বললে আন্ধারো জল মগ মগ মগ রনে গেমবাড়ারো ইনি ভারামা হামার কোরআন নে বলে জুমে কালা চিবেন গরিও নে মন রনে গেমবাড়ারো ইনি ভারামা জলম ওয়াম গেম বুনে ভরে জলম জুন মন রনে গেমবাড়ারো ইনি ভারামা naan la il yaat yow gëlëm ma buubu lu la wax ne góor coor si ñaan amaan il yaatul ko naan benn boor yoon mu daan lekkee benn balaa ñaar mu waxu kilomètre si ñaan amaan gëlëm mu yaatoo dugg kàll moom a def waat moom a benn góor coor si ñaan amaan xaar bi jàpp naa ne la gaay dañ nga borom ni tëttu gis mu sa jëleen ji sidina ama booba la leen dalal rey leen jàkk sarlu leen naan dal di jënd yi mburu jox leen gaañu waama gaañu lekk ba pare xonkuur na dafa ñaaraamaan jërëjëf jëf nga ngemee ma sidina ama mu waram ko naan ngam ji dee neex na waaye gàtt bi ngi reyal dafa nampuloo kalbu sidi baarama rabbeen ku nan gan gi dee miin na waaye nan gi ñu karne dafa tamal wacce xaqal sidi baarama xarmaaral ku nan gan gi dee miin na waaye mburu nu ñu karne ci ko doon tara waaye laabu sidi baarama igiyaat moom dafa wax tëj tëj loolu ñu sañu ba koy wax ci Ilias moom kami ñaata waa man daaw sa gàttu boobu noonu Sidi Arama góor gàttu naan man nag sama bi dafa teel ma foog ko jaral ko suñu kalbo Sidi Arama xaati gàttu naan rabbi yow di ñëw xar bi ku la babal mojjo ille ko sidibaarama naan ba fay dindi tayal daldi yokku xaal borom ya war nga waxtu sidibaarama góor ga daldi waaxu dem ci borom nanga naan ko waa mankaar sa naan ko borom mu demee sidibaarama kari jangan nanda benar ya guru yang kari kula nanti kau tuh terawai mau silakan amar hamar koran mulai guru berkuih mulai kata jadi mereka sana

تكاد ويوجد الموجود أيام ما يجرم بدون ثم ويبدك البيان الأبان فمن من برحمة دين الإسلام واتبعنا الله يوم تقديم والقرآن والإله فحلوة الأيات ما إلا إلى الأهل والزمن الأيام المكملة لحمد الإمام وكل الناس ربنا حرمنا كما تقولوا كما توقعوا بعد الجبور ومن الأمير فقدر لم يقدر الرحمن ويوقفنا يوم فيكون فقال ولا حول ولا قوة Oh, وما ظلمنا المؤمن وظلمنا wanda na mana bai bibi san ji faran da kwadoro yin hali kai ne ran da kula ba wajen lokacin da sayan da zafi kwadoro ne da rubutun ne a ramun da tsagarwa a ce da kai fadar da a wadanda a mamaki kai da fadar هذا ما قرر محمد ياتي الاسلام من غير ضروره وقد ميدان فيبقى مع الايمان

المثل الأجل داو بل له كان مثلا يجعل المثل هو المثل يقول كلام إلى كل لا يحب لا يحب لا يحب لا يحب لا يحب لا يحب تبين أول من العقاب جرد حتى الكرسي ولا ولا يطيع وزر عون قليل وقد بحر الأمور وجفا بمدرس قد جعلنا فقد قلبنا بينهم يكون ويكون قالوا أنك يجي الزبير الخلق ويجعلنا الجدال وقع بكل جعل البدر أمر الجمهور والجمهور العلم كجمهور الإسلام رب السماوات والأرض المساجد المعلومة إلى نقل الإنسان تظلم في الفرق وبيان شكاها تلك الجماعة التي الجنة ويكون كلام الأمر والجلدون البدن بالبطر رجال الأعمال نعمة بلقي فقير المسلمين وقال الذين يدعون الله ولعمرك أما ذنبك الأعلام وتكون من الرحمن والصلاة وعظيم يسألك بالله الأكبر من يدرس معه يوم مزيد وإنما بالأمر مدفن الآن العارف المنبت والإخاء ومن يقول ويأخذ مات ما يقول لا يقول لقد هرب تحديد الهدى أعوذ بالمتقمع أن لا لكم ما يريد المغصب أريا لكم ما يريد المنزوب هدايا جملة مسجد الغرب بما يوصل فلا تنصر من الحفان تبين عليه لا يخاف وقد من حتى

dan di luar kekuatan orang ada saat semua Yoga ada betul menimba Mulai aku yang cenderung tujuh Yoga ada anda menimba itu Mohon berdoa dan menjalankan Bergumul tidak memperlukan Yang pakai yang mati bara ma nay ñaanal ci yam na aw fanam lu dul dëgg dul dem ba àgg dem li moom moo ñu andil ci wan ba ñu ko dem na ñu ko ci fi ba ma na la ko ma ni len bay na nga na am ko ba ka na li sun ha adan ya ka ba yu ko ma ni len ke su na no ko ra ya ka ba ko na bu ri ra ko ko na ko so ko na ko ci li yo ko de எப்படியும் அவர்கள் நல்லடிக்கிறார்களா இவர்களுக்கு Barang masih berjoin dengan berjoin dengan Mereka ak nii leen ko moom la ñuy xalaat baay bi ba jël la ñu leen am ñu kay wa ak ñu leen moo lay xalaat baay moo ñu waxoon ci wuyu may bakkan bii may doxe naa di leen ko wax soxal ñu ni dañu ma ko baraama ko lay ma leen la ñu ko ma ko doon ñu di dee julee di yëpp saatiri yëpp da ci yu baraama ko lay ko ko yow su ba dee nga leen di wax Berikutu bahamayun mukalma Mubiru Barayat Barayat Kenyang rumah Kudutu kudutu yoyanna moy ci kamu ka moy ci lay karal ci atuna hanna fira mo len dul kala kali hatta ci sore dul ko ya ken dul ko ci no ni ñu la patta ni ko ko dul sallallahu sallallahu wa ya ya lo di gën wa dundal juma ñu ko lo di gën wa may ñaan ci yalla ak am bu ñu teñ ci madina ba ko ko அப்துல் தாலிப் உம்மன் எல்லாரு வந்து தாலிபின் முழுக்கரை முழுந்திருக்கமாக ni Allah ne zai mutu da ruwan mai bakuna ke wannan na kan magana ba ya nan da ba mutum ne ba da ba ne na kan da ba ko yo bari Motor muslimin bin jiwa. Dan karena punya putar kemahalan, wala kamari mawakan. Sedang putar putar rasul, wala kala lagi mujim rasul. Dan kamu yang borong. Kimo di buru Muhammad borong. Dur borong, temai borong ma. Kudu mau temai borong দুর্গম রম মোহাম্মদ গরম জমজা বলেন তেল গরম কি মধুপুর মোহাম্মদ গরম দূর গরম তেময় গরম কুদুল গরম তেময় গরম দুর্গম রম মোহাম্মদ গরম ইয়াল্লা হাবিব গরম মনে আমার মনে আমার মন উঠে মন হতে পারবে কাঞ্জামুখী মনসুর গরম rabbil bariyati ci moom mooy buuri buuri mooy borom yow saa xare jeexal ci kii bu def ku kenn ku lu ci réer bàyyi si bi lañ jëloon yaa ñu nandal bañ la wedam ñii na gis nañ suñ borom coy bii borom coy bii borom sëriñ bi mooy bunta borom màggal ko mooy bunta borom teral ko mooy bunta borom borom bi moo gën di borom nañ ci tàggal suñ borom naa ci lii borom Ibrahima ñu wax ni le ca tey ba ñetteel déglul ma yi le yow soo ko déggee di dexee saxal ci buntam suñ borom ruuxa bakkan dañ doon xuloo ma gaaw di xatte naan leen yéen baleen xuloo baleen déju ruuxoo nan gaaw a tuqaw suñ borom bakkan bi maa ngi lay digal yow sa xarit bi ñu digal bànneex bi mooy li lay digal wàññi nga woon jëm ci sa borom yow sa bakkar royor royor royor royor royor ci yow jëm ci sa borom yow sa xarit watul may tomboog diggante da moolale da xaajale ka feenale damay andil mbugalam borom bu may dolli sama bakkan digal wattu ma nay ak ku tayal rëy ak kañaan dañuy xañee wattu ma borom da la ilaha allah Rasulullah لهم لا إله إلا الله كما قلت الوقوفات لمن يأتيك برا لا إله إلا الله لا إله إلا الله مبصر بالعبد من صلاته بشير ثم الصلاة والسلام سرمدنا على نبي المصطفى محمدا قد جاء اسم المشياء البهاء أني أصر أقبل سيرا رافقني منك الأمين وهو أمين لا إله أمين ومن ذكى ركينة السجاء غير الوراء وباتني أدا بأن أجيب دعوتي لدى قراكري شبه كما همان اما كريم أنا سرير في لدى كبيرا أو دعوه سر أمين عندي بل بيا التي فقط قراهلا منا وبالطاقود مسائلا يسبون جلا قد جلا جلا والسماء لنا وسكي جلا من الأماء قد من الرسط لعبدي وما راه قد بتلك قصدته من أصحابي ببركة سير الأنام قد ساق لي قلت من يريد نبا لدينه ومن يسود أقص عن الذي عمر بجمع كسار قال الأخرى سلم لي أولاد أجمعنا أكبر مولانا مسيدنا أدام ربي أصول وسادا وقف الأمير ما أراد واتقوا ما صليتوا في مسجدهم وكمولي لدى مرسلهم بدأ ولا أردت تعمل مكلي فقد قلت اللهم عند منزلي فقلت يا رحيم يا كريم يا بر يا نفيق يا عالم ترجعني إلى مدينة سالما مركز سر القلب الصغار وتشكر النعمة فيها فإنها حقق لنا بدور عندها ربي أيا ربي فلا تسرنا غالية وتسرنا غيرها سكنهم أرساقا يأمرنا جامع ولا يعبدنا عالم المدرسون العلماء في كل صلاة يلقاما والعابدون يرسمون سكرا لجوعهم رب يسوق الميرا حق قدر وكبار العصر الحمد لله الحمد لله في القدم man ki ngalam soppe maa ngi sakku ñaan aji xañaa safar di moom bur yàlla daqal ko ka jullil ma ci taa rasul waali sabil udul wasabi omul butula fi kulli mayanaka moolo bar hama ñasi yow yaay ngalama tabe ñiiram aki tawama sa kàddu neex ba mel ni lem baay ngalam yow yaay ngalam baay fu mu juddoo tey ba ñafe na fu mu yaroo ca kuusi baay ku ko jàngal baayam la mooma kon tey ba yaada manga siin yowmal xamis ca takkusaan koo waadal di mel ni saan malaaka yanga sappe naan subhaana barama yay cosaan yowmal xamis ca takkusaan fukk ak juróom sahrul manaan mujib rajab waaqay bu naana waxal ñu xaw fooy fanaan xatum junne gannaaw gàddaay ak ñetti tiimiiri xat bilaay yu teg fan yu néew a néew keroog la takkaay mu da juddu barxaama ñas bilaa mira wala labaas xarnu yeddin bi yaa ko tas baay barxaama yaada xaw ñas ahmadu jogol taw na ba takkal masini yi fas yaa ngi jooy ngir bëgg a bay sa tool du booy bàyyi sa tool du booy sa tool booy ndax mu takkal ma ay garaat bàyyi may ma ndigal ma jóg jihaat na ma xamal lan lay do xaati ëllëg ana ban ay dapoor lay wàcc haat bàyyi dolli ma ndax ñu wéy la yaa koy joxe ba tax mu law ba tax mu law nekk di law ëski barxaama yaa fi xaw sattor wimo oɗa haɓda laayi waylulu ce asallo hon bi laayi nga waccat fiñun allah ɓaayi ngay ɗom ndi ɓay ce haɓdalaa ɓe asmi laayi barkelo ngir kulli amrin maytulo jëf walla wax ju dañtolo ci bismillahi basmilo araab daɗaanu ɓe kasal di lebdi teggi wër wëral di bakk waaji koy sagal muy buur ba mbaaka xam xalal ba tax na bu na lam urit ba mooy kañ am mbërëm sër te duniyaa ngir mbiram lu jeex lañu nuutu ñub dërëm li may wéyee ki firaw naw de pooko naw roy ca ba mooma raw topp naa yoon wa mu xaw waaye topp naa yoon wa mu xaw ci tag bi maam asami jigéen ñi baax ñëwoon ba faw ngir boobu hen duñ ko taxaw maama si jànqa yaa gore maama si ay ñayu xare yaay ka mu ñëwoon ba joy waree looloo waral tey ñëppuree maam astu géejung mbambulaan ndoxom mi neex walangaan jigéen ñi roy tey dagaan ci moom baroot seeni bagaan maam astu jànqa muy kënu balam ya moo dem ba kënu taj man xat sëkkënu ba soxna say kenoo maam as su jànqaay gëluwaar matal na mboolee mi dawaar mbiram mi tolla raw na waar kii moo ñu hem kii matal na xaqi boromam set na ci xaqi matal na xaqi sëriñama sangam ba borom këram looloo waral mu noon ci moom maam astumi lay gan ji doom di waaji doon nu mbon ma moom fay du mbëngir moo ca moom maam astumi ay ga la jaay jëndi ko am njaram jaayante naag borom këram matal ko làqee ngërëmam moo liggéeyal borom këram daan tiraanga xam ngërëm te buur bi boromam ba tax na doo gis moromam jox na ko léppi halalam ngir doom ju baaxam barke xam waaye jëmi barke xam la xam ba lex miraar jeexee xatam mamastu jànqa mooy ngalam xayma ja for na ay lamam duñ ko xaymaa ki përëm te duñ ko jaayee ay dërëm maam astu jànqa fam soso ab nen ca ñoom soso mooy junni cuuj ba ca soso te duñ ko xaymaak lëm sosoot jaaraama soxna asta yow sa doomi doom ji foo taxaw ci dun bi takke leen ñi raw barka njànka maa naw maama si jànka yaayi baay kii baayi doom yaa baay moo foor garat kawe médaay ngir mos damba wax lu haay maam astu mooy nawet bu bees lool li mboxoom na sàq fees nooraan di lekkal mu rees démb la woon na lu wees mam astu mooy yaayi karaw kawee ca gaa karaw ka boole ñaari buum yaraw mu mel ni soowa kam karaw sarihatu xaqiqatu ak ilmu ak maarifatu ak rusdu ak wilayatu ci jenni yaay ji mooy satu mam astu jànqa taarixam xellente hoon ma gis ku ba nettalin leen ay mbiram ci ay xibaari sax-saxam man dégg naa ne ak ndawam njànkada daan muuru sëlam ba mag ñi naan kile mbiram nim ndawee daf ñu xëlam te daawut foni ay gune da sikar fu mu mën a ne ndaxut bu fu mu war doon fu mu mën a ne kenn ma sëjit maam asta wax ci kaw ci ay sikar la sax te mu sarree ba rekku sax te mos sa yandoor ngir na sangi jigéen yiñ fi xamoon ci dun bi yaaxaw fiñ xawoon mel nañ meloon def lañ defoon ngir jant fenkan moo soxoon ndax gaañu gën juróom la woon yónnentu ak saxaabaam yoxoon ñeenti ñu baax ñoxoon taxoon xam na ñu naan juróom la woon xamar juróom benneel na leen ibnu abdul asis keleem rayoon ci mbaaka fonku leen te tànn seen yoon topp leen juróomi soxna yi itam ñoo gën ci fii ak fu ñu jëm maam asta roy na leen ba am ku ñëpp nawloo moom itam xadijatoog fatimatu aisatoog asiyatu mariama ñi hëjal atu maam astu mooy saadisatu juróom bennal na leen ba tey ba tax na boo xëyee da jigéen ñi baa ñëwoon te wéy wayoo ko woowa way way maam astu dongoy sëriñam bu baax ba xam nañ njëriñam bagaani soow yaa karawam njaboot ga xam nañ aw ñamam mooy yaayi mboolem ndongo ya toggoona fóot maag togg ya toggoona wal ya soq ya toggoona ron maag coono ya dama safaatal waxtu wa ak wir de wasifa wa te fonk lool wa maam astu jël na raayawaa jigéen ñi xam ne royuwaay maam astu jànqay rawuwaay xaw leen ci yoonam ngelawaay te bu leen ko séentu raw na waay sa doom ji géej la diñ ko ŋas siggil na gaa ya sant ñas te toolu diina moo ko ñas ba nooni diina xëy na mes sa doom ji njànk moo musal ruu yi ci mbugal setal na seen tilim saxal na leen ci ñuy jëfee ndigal sa doom ji moo tax jaam ñi xam kuy Moustapha xam ay waxam xam Cheikh Tidiane xam ay junjëm xam yàlla nangu ay jëfam sa doom ji mu réew yu yóbbe ñaan nganam ci ñoom ngir deffo fa ñaan tafum fa xendoo mbaa fanaan ñi jóg ci beekër ci ñaan sa doom ji mooy xut bu samaan baxrul buuri kenn du naan la ci géejam fooy fanaan lu dul ci suufu asamaan siggil ba laalil asamaan sa doom ji mooy xutbu samaan walan yaqaf jawra zamaan mooy rabbu amnin wa amaan sëriñ si buñ teewee fa baay ñaamel ni ndongo ñaani doom sirif say barkelu ci moom di xidma ngir xam cër yu xoom ba baay ji doole sunu maam abdul ilaahi ñas na maam asta yaakaar nga muy imaam man dogu naata mantaraam xaj ma fati moom la baay wax liir la booba ci lalaay rijaalu xay bu yaa gaay nangul ko baay moo formé daay Seydi Tijaan anta barhama inno haddalaay setal nga ñawira buy doon Sidi barham mu na xalal borom baadi gayndeem gi bu leen xëccoog bàyyi yoonu lislaam heli maam jaay sidi baar amma ne bëtëb rëbbu jël nab yalta baram du seen maas fam leen ko weede mu leen fa nooni baar amma ne ku manut baleen ma du wax baleen ko dënge réeréer halkande ñaar ñi bañ sidi baaraam ma ne mburu lakke wuñ ko foon rek <laughs> wattu leen berte ñaari yoon li ngeen du dala sengeen dem fa baaraam ma ne mburu mu ñooy lakke foon rek <laughs> moo de wir daw neen baada man tatay ba moromam noni baaraam ma ne seyqi siyooqi ñas baay Baay Ñas sangam nga seexee sa laay kamburen jo doy na kéemaan Sidi Baara mana bee sa laay bindee leetar bi yónnee ko Barham ne jumaa jeñ doon liggéey pare na Sidi Baara mana sa laay ibnu Limaamu Laay mun ko naan de pare ñëw baay jumaa ji la yaa koy daloo sidi baara mana e sànku naan yow laa wóolu ñas yaa ñu koy dalool bàyyi yaay su njiit ca maloo la sidi baara mana baraama daal di seen lettre ba yónnee ko insaan jumaa ji ca dix heures daa ñëw sidi baara mana insaan dajale waa Cambérène danaan teeru leen ko xutbu sama dana ñëw tey Sidi Baara ma ne sang naan teeru leen ko nag yaa naan yaroo leen may leen ko teggin ya ca war Sidi Baara ma ne Baara man ko naan Alaaji Omar Kan pareel waayi kambre ndax sori na fen Sidi Baara ma ne Alaaji Omar naan ko barab ba sori hun ñas neuf kilomètres la bu diisir jubi danañ teeri sidi baara man alaaji Omar kanam Ndakaaru yónnee sa ndongoom yo aboori jàll nee na ngeen ñëw sidi baara man alaaji Omar kanam Ndakaaru xoola sëfooram sa sori leen isaas pare ñu dem gañi baara am na sa dal di dem soli isaas ñi wuti selendar ya dëgg demar yër ya korno sidi ba alhammana ba bay trente-trois sa cousin ba léeba naan Seexu Tijaan Seex supaab ya naan huwal hakku sidi ba alhammana oto yangay yol ni ndox toppante ca bulu war ya ngay kurna hutti tillen sidi ba alhammane baño gaare marta Sandaga man dama ngele man bindeef yanga mel ni korondong Sidi Bahar Amane mbindew yàlla na ngëb sa radiateur ba danaan freiner de safar fa yàlla gaaw ñu siyaare soppe Bahar Amane ñu ngay nuyu di ko siyaare tanaan lii du neena neen kili qutbu saman mahim Sidi Bahar Amane ñu ko naan sëyq siyooqi ñas baay baay ñas may ñu am ñaan yow la yàlla tànn ngay njiit sidi baaraam mu ne jëmmam ji wegu jag laa biir ga melo kakkataar de mu ngay muñ ta daleen len sidi baaraam mana alaa jomor naan tallal leen taw wax ne amin leen ñu or bi jot na sidi baaraam mana waa kambra rang fa jumaaja xalal ko aw yoon sandar ba saa ñëw da garde sidi baaraam mana hee sallay moo force bëkk néegam bi taal leen cuuraay li fab leen pili yambi poosen sidi bar amu na ko bàyyi yaa woon abool basar maam aadama abool anbiyaay baatam yam doon jégalu buur ba yow la baraham mana yow la buur bi joxoon ay mbuutam ci réewi nam roos yaa fi joxoon ay ndam roy na baraam mu na ko Iisaa mi daan dekkal way dey ci mbooti baraam la daan jëli mbuuti docteur gëm na bara amana yaawan suleymaan ay mbuutum ba mooy kayti naaw moo ki jinneem janaaw yey way leer na bara am mu ne baayam ba daawuda neen baat ga tedd gam gam yor làmmeñ wa kay yaa ko suukar sidi bara am mu ne ko tajjili yaab yooyu jàlloon nañ am na yu beesaat xoolal jawharatul kamal gis fa bara amana mooy ay ni rahmatu rabbaaniya bi bar xaama xaynul xaq yi suñ baay jëmmi bar am mana mooy talaatul xaq bil xaqi mooy kan di laazam te ku ko weddi toro xalaku man ci bar am mu ne ba ne xammi naa la sama yaa fi dikkoon daaw ma son nga fii ñëwi daaw jeeg yaa bar am mana mbu nga sol bokkul ak mooma mooma gannaa weex moom nga soloon xatam daaw jeeg yaa ngi baax a ah, mën nga ñoo dal di sol mii nii basee bu ris bi la gaa tey wey te gi baax a mën a waaye joxoñ naa la sama baaraam kamoo naa la faas gisoon naa la abisam kon yaa ngi baax a mën a yàgg mu riiroon kurma si weeru sawal yowmal xamis keroog suba teel julli baax a mën a amal ngay làqu dellu feeñaat fii ama nafsin ay ni maadin pays bar am mën a dellu feeñaat xatam juma yaa ngi bi yoon dooma réer de ngëlam te sànku la bum dal waaye bar am mu ne juma biddiw ba ca wàccoon ca kaw asamaaw kereg lañ ñu jagleel suñ baay siri bar am mën a biddiw boobaa sunu ruuy sant war na jaam rowul hu daa sañ na soodaan sidi baramane biddiw baa nga naan subhaana rabbi yàlla la moom la suubu bahru malakoot sidi baramane laaj naa ko baay fiiqu ne na moom la moo fi dikkoon daaw laaj naa ko baay hibra falit moo di baramane laaj naa ko baay hasan sama waaji mu ne waa tafsir Ousmane Ndiaye baax na gëm na baramane xaami ñaari xaaj lañ ñii noonu dañoo noonoo bàyyi yal nañ torox tabbi kasoog Sidi Bara amoon na kasoom nga moo ay noonam caabi jàngaan bàyyi guddi bëccëg yaram bay dal na ne Bara amal la illallah la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 قدر المختار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وخلق والقاسم سبق الناس من قدرك والهدي الى صراطك المستقيم وعلى آل يا قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وخلق والقاسم سبق الناس الأخلاق والهدي إلى صراطك المستقيم على آه، يا عبد المقدار العظيم سبحان ربك رب العباد يذكرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 拜啦。 la la la la Ayala, ayala, ayala, ayala.